na la xew am ci famem nangam sanga waaye lu baax la jaadu ku baax la ci famille Wally la bokk. non ku baax la. sans rien dire. mu ngi noonu ku baax la sans sans rien dire. waaw waaw pour te dire rek te dire rek munuñ dimbali mu nuñ fexe bañ gëm leen munuñ. raaj la raaj la garaawul. munuñ fexe bañ muñ. li nii de góob ma. su ma gëmoo maanaam ba dama leen bàyyiwul sa xel ñii saa temps yi. sew barke Cheikhul Khadim ma leen xel parce que xam nga dama gis moom dama gis lu yàq lu bëri ñoo ko yàq. comme la sëy yu tas ñoo ko tas nit ku am problème ndeysaan am nga problème dafa doy waar. Mhm. ñoo ci yow foog ni ndeysaan problème day saafara parce que da dégg nga gën ko yokk ay problème hmm, nan ñu yem. mais des fois tamit defal ay nit. Hmm. en tout cas de sëñ Bada moom wax na fi loo xamante ni démb lu ma jàpp la mu ne gémmiñ gi barke yàllaa ko xam. boo ñëwee ah, ah, ma ñaan ah day nangu wala mu bañ a nangu noonu la demee. non non non billahi. nice bi ma amee ma toog saag bi affaire wala am ñoom koy envoyé am ay rëy di ma jàpp. gars naa am est-ce que fu ne la mu ne ne na ñaan mu nangu ma ma ñaan mu nangu. am na dama ko bëgg li mu benn bàkkaar parce que tey bu fekkee ni maanaam moom nee na carrément moo xamul dara day ñaan kese nit bu demee si moom ne ko ñaanal ma kooku moo def lu ko neex. nee na la man damay dóor sàcc laa ki wax loolu jeex na. <laughs> day mel ni jaaykatu maanaam kii euh, nu mu sax euh, cigarette bi nu mu tudd cigarette boobu. ban cigarette du ma tuux kar xam nga moo tax. Euh, ak yàlla moom. kañ nga bàyyi tuux yow ba fàtte cigarette. moom <laughs> moo tuux. temps yi temps yi dama bàyyi quoi bàyyi moo tax mal ah mal. parce que eh, nit ki da ngay jaay pare li li may li may jaay ni baaxul. abus dangereux pour votre santé noonu lañ ciy bind par ñuy tuux. mooy sëñ maa mooy sëñ Badara daanaka carrément du ma sëñ xaw ma dara. Hmm. boo ne sa xaaj na damay lekk ba ma déggee damay lekk donc yow bu ñëwee loo def yaa loo def. sa bopp yaa tooñ sa bopp noonu la demee. Hmm. acca kon waaye lu mu wax baax nee na incha allah moom Modou Lo dina waaw euh, <clears throat> loolu la wax kii loolu la wax. kuy daan. ah ki war a daan. ut na yow il faut nga dëgër fit quoi. pour damay dëgër fit di fen. damay dëgëree fit man xaw ma nag table bi dinaa ci wàcc nii daf ma leen ndax émission bi dama koy àggal. ah di incha allah moom lay ñaan mais wóoru ma ndax muutee ngi nii doon caméra bi damay jékki-jékki fàq wala leneen ak yeneen gudd fan nag la ñu am man sama sama sama sama génn fii wóoru may may wax li lu war a xew premier ñaar yi sama yoon. man dama gis di fu mu ne nii maa ngi gis ni téye naa sama téléphone nii ak beneen téléphone di waxee nii à part lii yi gisuma ko li nekk fi mu ne ci ci ci gannaaw gannaaw décor bi gisuma <laughs> ah, naa ah. foog yow kii nga mais yow daal mooy loolu. ah man dugguma de. du kii nga dugg. maa duggul soo da ngaa de man jëluma benn yi gars di def. ñu naan mun mun nañ te munuñ. sëñ Bara moo changé xel bi sëñ Bara dootu dootu ñëw fii parce que sëñ Bara day changé xel bi instant yow lu nga waroon lu nga wax lu ci ne ma wax lu ci ne nga wax léegi waxal na sa xel si diggante Modou ak Ama Bal kii Boy Niang Modou mooy intellectuel mbër yi Boy Niang di intellectuel intellectuel lu mbër yi li ma la wax Modou Lo mooy intellectuel yu mbëri. li nga wax dégg na laaj. booy Niang di intellectuel intellectuel intellectuel yu mbëri parce que de un jàng na la fait ba bancs. Mhm. mun calculer xam ne muy defee ba pare làmbam yëpp ci calcul la ko daane. Mhm. te dafa mën a nangu temps mais kii intellectuel bu brusque la Modou parce que mathématicien la te day def PC te xam ne stégio ak histoire. xam nga ah, xam nga stégio ba pare. Mhm. histoire ak géographie lañ boole. Mhm. xam na ñaar yooyu ba pare waaye nag xam na histoire à ndax dafa marqué histoire ñoo ñooy bëre. kon daal combat bi daal ku ko maanaam combat des techniciens yi mën nañu. Mm, merci. moo tax Modou Lo ku xeef ah. ëpp avantage ci combat bi. nga yaakaar ko. Mhm. pour à chaque fois boo ñaar kuy mënti bëre la naan moo ëpp. diw moom Modou Lo Modou Lo moo ëpp avantage ci combat bi ndaxte boo ñaa day blessé yu bëri mm-hmm. est-ce que euh, yow imagine ñaata victoire la Modou loo dajale biir Pikine dafa toog ci waa Pikine yëpp nii di doon seen monsieur le maire moo tax premier ministre moo tax kee nag day ñëw ne loolu dafa war a dañ Modou Lo bu ko neexee dara du ko Modou Lo bu ko neexee ñu ne prix mu nii xoolal taxaw xaar te kenn du ko ci sikk waaw kee war a bëri ku koy conseil na nga ko conseil bu bis baa na bëri. mais boo ñaata nekkul genre yooyu de. ñaata intellectuel laa la teglal ci moom ñett. kon de la la la mais Modou Lo xam na loolu parce que bañ koy laaj naan ko diggante Ama bale ak euh, Boy Niang ñoom ñaar ka moo dàq bëri mu ni bokku sax Boy Niang lay gën a bàyyi xel ko Ama Baldé. parce que li ma la waxoon mu ñëw kay day calculer. parce que moom mathématicien bi mu doon a tax moo xam ne kii intellectuel la mun na calculer. Mhm. waaye moom Modou Lô mun na histoire ba pare mun histoire. ku laaj Eumeu Sène laaj Paul Maurice laaj Boy Kaïré laaj Bombardier ko daan laaj Balla Gaye mi ko daan. Mhm. Ah. laaj Eumeu mbër mi man defee gën a métti. su ma xalaatee Modou daan na <laughs> daan ko def. en tout am nga koo faral. Hmm? ci combat bi. waaw ah. man moom Eumeu Sène sama mbër. d'accord mais am nga am nga na. non bu fekkee Eumeu Sène nga faral. walla walla na ku daan baax na du caaxaan. man mu jaral ma ko moom ku dul Eumeu Sène defalu ma la ko. Hmm, Eumeu Sène monsieur am ne. wóor na yàlla ku dul Eumeu Sène man ay temps su ma jugee seetaani mbapat ordinateur laa seetaani. ordinateur ah. waaw ordinateur ko mën. ñoo jóg ordinateur laa seetaan dem toog mbapat nii. dem Grand-Yoff waaw. wala ay sax damay dem Fatick nii weekend mi war a bëri ñaaxaar ak nangam sangam ma jël moto dem toog seetaan ordinateur seetaan mbapat. ak mën seetaan cosaan. waaye mbir moom bu ma jaral stade takk samay dàll daw toog seetaan day sama lépp toog loolu ëmm seen la bu weesoo ku daan ci làmb ji baax na wallaahi lazim duy caaxaan. dëgg la. waaw dëgg ordinateur de daaw day bëri ba saag naan ah, anu luuri mbapat ak mën. <laughs> technicien comme moom noonu jërëjëf Ousse ñu may si waxtu fi toll nii Papa Peng. Mhm. rendez-vous. rendez-vous demee incha allah. incha allah rabi. que passe bu neex. di la bëggee. di la rëbbëggee. yow na sa jàmm yàgg waa timbi. sama gars sa gars yi. ñu lay laajte. mosuma xam tur. lan lay wax. ah yow yaay yaay Malick Coumba yow yaa hmm. tas ma xalaat si woon waaye tas ma noonu laa tas mais boo tasee doo gaaw a jëlaat de sa xeetam mooy tax jërëjëf yow waaye du ma ak yow. yow est-ce moo tax nga yaay dem ba Dakar yaay yëlu. Malick Coumba réew waaye Coumba réew. xam nga bés moo seen doo la takk doomu bàjjanam. laa tënk kër dama la jàll génn sama kër ci biti naa ñëw naa ñëw ñaari espèce boole si yow mu ñett te xoolal ba sa morom te maa ngi ko mën a yëg ma de. maaleykum ba tey moom du ma nit ku baax la. ko laa waxoon sax. maa leen di nuyu booy bi xam ne ku baax la ndeysaan ku oyof. yaramam neex Malick bi yaay yaay baayam. maay baayam voilà waaw ndax dafa am sama doom lu mu ma wax. Hmm. dégg nga nee na Malick nee na ko war def yi fi tubaab comme ñoom ay tubaab lañu dégg nga nu ëmbalante avant nu avant nu woon noonu bakkan sa doom nag mu ngi proposé sama doom loo xamante ne biñ dee fii bés bu ko defee dinañ am problème. <laughs> Euh, bi muy jëm ci soow. daa jël décision naan ba mandi mu lappi dem. waaye bu xamoon ne da cay dee du ca dem. sa doom bu ñàkkee fay de bu ubbil Malick Malick dugal. amal ko ah. benn benn ah. ah. ni ma ko waxee. doom loolu la ne doom ju jigéen baay ba. boo fekkee ne da nga daan ubbi sa doom ju ubbi yéen a yem kii. waaw sa mu moo waaye baax na dina xam lépp la tudd. yow mi sa doom yor li ñu war a ubbi. dama la wax benn affaire sama nañ ne. jërëjëf dama la wax waat yow na la wóor ko yow binte maa waat naa ko may bëgg a waat bés bu Malick kum Malick sa Malick yow bés bu ëmbalee sa yow doom man yéen dina la wóor na ma jigéen ñàkkee fayda ba jox ko def ndax fan koy defante fekkew ma sama yoon nekk nga téye sa doom waaw man xam la usu ku tooñ en tout cas neex na de non c'est vrai ku tooñ maanaam Malick Kumba wala Kumba la wala Malick wala Kumba ñoom ñaar ñëpp a neex mais ñaar paa yi léegi li ñu xuloo ni booy doon àtte yow da nga leen àtte seen yoon nekku ci daa fekk ku ci nekk wéetoo rek bañ def la la ku def maalik <laughs> dañoo baax di rek. <laughs> mën rek mais ku ci wéet ah, ñoom ñoom waaw ku ci wéet ko di nga xam ni ñoom li ñuy def xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax. def dof lu waaw kontaan kontaan ci ah. ci ñi nga xamante ni ñoo safoo télé Sénégal ni ma leen ko waxee rek te duñu seetaan saa su nekk te duñu bàyyi xel saa su nekk te duñu teewlu saa su nekk te duñu bëggee saa su nekk te duñu bàyyi xel it saa su nekk ndax nag nit amul lu dul ki koy teewlu bu dee ñaari nit la nit lu dul bu dee ñetti nit la nit amul lu dul ki koy teewlu ndax wax nag neex na waaye itamit métti na waaye déglu tamit neex na itamit métti na waaye ka lay déglu kan la doon mhm. ak yow miy wax kan la doon kon yàlla na ñu yàlla defal jàmm yàlla na ñu defal tawféex yàlla na ñu yàlla mbay ndam di souhaiter un joyeux anniversaire amana rasul sama waa mhm. sama xarit sama taalibe cheikh bi mhm. taalibe sëriñ Babacar bi safiyatu aram monko aram monko ko ma njaay mu njaayi faama amana ya rasulullahi borom medina borom ah, borom medina daaru salaam mhm. nga xamante gaa yëpp di daje guddi gu jot amana ci oyof gi amana ci mbaax gi amana ci dignité gi amana ci fulla gi amana ci fayda gi ndeysaan oyof a tax bu gaa yëpp dajee mooy jëli xéwal gi tàngal ñëpp la xam nga loolu ku koy def rek nit ku baax nga. wallaay waaw ah, kon ñu ngi koy ñaanal na yàgg na yokk na wér bu ko ay jege fenn bu dara mun ci moom dara barki Seydi Hadji Malick yaaram dundal. dégg nañ ci yow. jërëjëf lu ma neex si yow même race même race bu lay fekk di la boole ak nit ñi say moom da lay jëm jaxase ak say xarit. Mhm. yow doo ko nangu. ci lan moom waaw. xool mu lay def. <laughs> jërëjëf jërëjëf mbokk internet de di leen jox rendez-vous incha allah demain incha allah même heure d'ici là magie beaucoup de banaan